te lu mel nii bu ko defee way juróom toog day bëgg barke bi te barke bi dafay bëgg mu law moo tax mu ne papa man kat doom kenn du laal lenn lu dul yow boo laalee ba noppi. kon fa tubaarakallaahu lii mu la ubbee yàlla na doon sa njiglaay lii mu la ubbee yàlla na doon xéewal ci yow lii mu la ubbee yàlla na doon barke ci yow lii mu la ubbee yàlla na doon sutura ci yow lii mu la ubbee yàlla doon kattan ci yow waaye yàlla doon wér ci yow yàlla na doon gudd ak ñi nga àndal ak sa ndey kon fa tabaarakallaahu ne ñëpp teewlu nga xam ne maam Ndiaye ak xewle te maam Ndiaye bu xewlee ñëpp wuy si ko kon yàlla yàlla barkeel lépp Issa kàddu gaa ngi noonu. daa am kilifa bu ma bëgg ma bëgg a présenté sëriñ Maodo Xari yàlla baax nga xamante ni moo ñëw wàcc alxuraan bi sëriñ Maodo Xari mi nga xamante ni yàlla baax moom mi nga xamante ni moo ñëw jàng alxuraan bi di kilifa di imam. waaye di sëriñ. moom defagul dara yow yaa def lépp yàlla def yàgg te ndax sëy gis nga jigéen kuy sëy bu ne suñ ko bayee may dañ koo jox convocation convocation bi koy validé suñ ko demee ba validé dañ koy defee ne xale bi day sëy xale bi bu sëyee dañ mooy ko su fa juree doom ju mel ni ndey jaay sa doom mooy nekk avocat lay bu mu génn kon tey ki la nekk sa avocat tey mooy Mame Ndiaye la nga doon def ci biir néegu bàyyam leer na la nga doon sëmbat sëy ba nga doon leer na la nga doon def ak bàyyam ci lu baax leer na ndax tey moom mooy confirmation bi yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi wéer ñun moment yu mel ni lañ soxla ndax ñun fi ñu jural lu baax lañ bëgg ndax boo jural lu baax la ko sama réew mi yëpp nga ko jural ndax tey Mame Ndiaye fu mu si sigil seen askan tey fu mu taxaw sigil la tey fu mu taxaw ma ne sama yaay mooy kan tey Macky Sall mii tey bu taxawee tey bàyyam la ñuy war mooy kan tey maam Ndiaye fu mu taxaw yow waay kan yàlla sa fan gudd ñun nag bippee gu ñu ba léegi dama bu nga ñëw bippee ñu nag ndax xam nga bu yokk mu yàgg ñu bippe la day daal di neex. xam nga lu tax moom dafa ndeyam yi maam Ndiaye ndax dafa fomp rongañu ndeyam ndax ndeyam dafa liggéey ci kër baayam ba tax du ndax li nga liggéey fa tabaarakallaahu dafa doon loo xam ne yaa ko liggéey ba koy liggéey mu métti lool waaye da ngaa toog ndax nit nag buy muñ résultat ba dina jot bés jot mu taxawal taxawaay bu mel nii ba ñëpp naw waaye ba koy liggéey muñ la woon waaye tey ay xaqataay laa di ndax lu tax ku ne bëgg ngaa jur maam Ndiaye. tey nag li tax ñu bëgg koo jur yaa ko liggéeyal. ci jom ak fulla ak ngor ak diine toog ci kër baayam naaj fekk la fa daw fekk la fa lépp fekk la fa waaye nga toog ci sutura ak ngor ba fekk la fa kon doom jii tey moom comme bu say rongañ yëkkati la yëkkati drapeau bi ba ñëpp kon maam Ndiaye sa ndey ju baax jii liggéeyal na la loo xam ne tey jii foo daagu ñëpp naaw la kon nag du koy ñaanal yàlla nga fekkee njëriñu maam Ndiaye nag nga lekk ci ba ci barke Sëñ Fallou nga lëkk ci ba doy. kon doom jii tey moo fomp say rongañ yëkkati la yëkkati drapeau bi ba ñëpp gis ko. kon maam Ndiaye sa ndey ju baax jii liggéeyal na la loo xam ne tey jii foo daagu ñëpp naaw la. loo kon nag du koy ñaanal yàlla nga fekke njëriñu maam Ndiaye nag nga lekk ba doy ci barke Sëñ Fallou nga lekk ci ba doy ci barke Sëñ Fallou ndax sa taxawaay ak tamit nii nga wuufee maam Ndiaye waaye nag nga bokk nag uuf boobu njaboot bi yëpp. jël maam Ndiaye nag partagé ko ci jullit yàlla yëpp kon di lii nga def jëloo maam Ndiaye rek jël ko dafañ ko teg ko ci kawen waaye daf ko jël na ko maam Ndiaye maa la jur kat waaye yow doomu réew mi nga moom it mu xam ne doomu réew mi la mu ànd ak ñëpp ci réew mi na di liggéey liggéey bu am solo di liggéey liggéey bu am maana di liggéey liggéey boo xam ne julliti yàlla yëpp soxla nañ ko ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi képp koo xam ne yaa ngi ci réewu Sénégal xam nga turu maam Ndiaye Savon ndax jikko yu rafet yi ak ngor gi ak nangoo liggéey ak am jom bi kon fa tubaarakallaahu dañ koy ñaanal yàlla moom baayam bu baax bi yàlla na la yàlla jàppale jàppale leen lépp ci barke Muhammad sallallahu alayhi def tubaarakallaahu ñii nag ñooy ay ñooy ay waajuram yu tabaarakallaahu bàyyam ñëw nag ànd ak délégation boo xam ne ñun ñëpp teg nañ ci sunu bët fa tabaarakallaahu maam Ndiaye jiite lépp nag waaye nag te tere la ko Serigne Fallou kon yàlla na yàlla dolli barke bi. waaye Abdou Aziz maam Ndiaye daa def léegi lu daw sama yaram daa woo bàyyam na ko kay ubbil ma kay ubbil ma la ko wax bàyyam la woo na kay ubbil ma bàyyam yi ngi doon digal kon mooy ñëpp li nga xamante ne mooy teraanga Serigne Fallou Abdou Aziz waxul tuuti. maam Ndiaye dafa woo baayam baayam ñëw mu ne ko ubbil mu ne ko ubbil baayam ubbi ko kon lii dafay wane ne rek am na fu mu teg ay waajuram lii dafay wane ne ku am kilifa la lii dafay wane ne doom ju waajuram waaye nag euh, sëriñ bi wàcce kaamil bi Ndeysaan

alxuraan dafa nii yaay ju baax mooy jur doom ju baax maam Ndiaye tey ku ne bëgg na koo jur ku ne bëgg na koo jur baax ci réew mi ku am ci réew na jur maam Ndiaye nii ndax jigéen ju mën la di koo xamante ni empreinte marqué na ko ci réew dafa war ni xale yi affaire bi liggéey gëm sa bopp la loolu la wane maam Ndiaye dafa ñëw fekk fi nit ñi lii gëm sa bopp la écarté boppam ba ñëpp xam ko waaye mu takku ci lu jub nag ndax léeg-léeg nga écarté sa bopp ñëpp xam na fekk te lañ la xam jugul waaye léeg-léeg nga écarté sa bopp teg sa bopp te lañ la xam dafa jub lii lépp yow gis nga bis bi tey yow la maam Ndiaye xam nga kañ lay am bis bu demee ba am doom doom taxaw di def bis lu mel nii boobaa. may naa la guy maa ngi ci jàmm bu baax a baax. maam maam maam tey dama gis image bu garaaw ah. mhm. mooy nga xëy uuf sëñ Fallou ci bés sëñ Fallou bi. waaw damaa kontaan rek ànd ak fierté ndax man sëñ Fallou rek laa bëgg kon tey bisam bi sama doom ji rek laa fonk ñuy def tey Kazu Rajab sëñ sëñ bisu turandoom nu ñuy def. waaw sëñ Fallou. borom di wuyu wuyu nee na ndax kontaan nga si bis bi. Ah, kon jàmm waat daa kontaan moom sëñ moom daa bëgg turandoo bi. waaw bëgg turandoo macha allah. mais maam tey bés bi ñu teel a gis ni daanaka li sëñ bi santaane ci nga nekk mooy bi ma ñëwee gis naa ay wàccee kaamil euh, mu mel ni lépp loo xamante ne tey sëñ bi loolu la bëggoon ci bés bi rek dèjà commencé nga ko. waaw instant yi dañuy wàcce kaamil ñaan jàng ay xasida parce que noonu lañ koy defee Touba te fii noonu lañ koy defee comme li ma wax rek dama ne kuñ mënut a dem Touba it boo ñëwee baasu maam la am Touba laa bëgg mu am fi sant sëñ sëñ sëñ Fallou Mbacké ñu duru soo xasida rek. di eh, jàng alxuraan yi sunu paree nag daal di ñëw ci dukkat beeg yooyu waaye l'essentiel daal balaa dara xew dañuy wàcc kaami dursu ba pare. Ah, tey dina am ay xasida jàng yooyu. yépp lay am xasida yi ñëpp dinañ ñëw incha allah ñu jàng alxuraan ñoo ngi ne ñu ngi toog di jàng alxuraan. Mhm. ñu gis ni tey wax dëgg yàlla bi ñëwee gis say xarit daanaka démb ba tey fii lañu nekk ku ci mel ni bébé Eva ba ci say wayjur ñëpp toog euh, ku mu mel ni bés bii nii tey ñoom wax dëgg yàlla seetaanuñ la benn yoon nga wéet. waa xam nga nit day fonk ay mbokkam ak ay nitam boo xewlee geestu gisoo say mbokk war nga tiit ci sa bopp te man li may wax rek duma jàngaani duma seeti mbokku jàmbur seetuma borom lambu diis ñi nga xam ne ñooy sama waajur di samay mbokk ñoom laa gën a fonk ci àddina rawatina nag sama xarit yi nga xam ne démb ba tey ñoo ngi fi démb ba tey ñu ngi ñu ngi fi bokk ak man lépp. si laxasaay ah? waa nii laa def rek Baye Modou Kane moo fi jaar rek yónnee ma ko teg ci xaas bu baree baree baree bari ne ma maam Ndiaye ma ne ko ah mu ne boo xëyee rek sol ko te yeneen laxasaay yu nu war a def rek ndax nun nun nun nun euh, li ñuy wax ni diw buñ ne baax na ndax mbokk yaa ko wax góor gi ñu gis tey euh, euh, maam Ndiaye di seen doom ñu gis ma ni coono waaye gestes yi nga xamante ni daf koy def ci bés bii nii yéen ñi nga xam ne yéen ay juróom lan ngeen ci mën a wax ah maam xanaa nekk suñu doom ju baax rek nekk ab jullit di taalibe ab dëgg fi yàlla bu taxawee nii tey def kasu rajab bi def na lu war a def ndax ay waajuram ñi ko meññ ak maam ñi ko meññ ci diine lañ ko xamee nitu diine la diine moo jur moo moo moo moo moo ay maamam lañu ay baayam nitu diine lañu kii nag moo magu ko papaam la duma ci wax sore ci dama koy jox ñu ko wax Thierno Seydou Dia di magu papaam kon nag Thierno. kaddu góor gi tey seen doom euh, dëgg dëgg ma lu euh, tànt bu mel nii mu di bësu sëñ Fallou euh, ñu gis gestes yi nga xam ne daf koy def aussi tamit yéen ñi di ay waajuram boo leen déggee à chaque fois ñuy wax ci seen doom yow mi nga xam ni yéen ay waajuram lan ngeen ci mën a wax maam kaay nii. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatu gannaaw gu ñuy sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp xanaa kay. di gërëm suñu doom bii di maam Ndiaye ndax maam Ndiaye maag baayam ñoo bokk benn baay yaa ngi dégg ñu dëkk nag ci dëkk bu ñuy wax Leerabe moom mii foofu la soqee ko Leerabe donc nekk ay ay maamam nekk ay hafiz alquran maamam yi ñu koy wax béy di penda donc su defee lii ah, duñu bett ndax fu mu juddoo la ci deret bu mu juddoo la. maam Ndiaye nag ñu ngi koy gërëm du ko sant ndax wax dëgg yàlla mu ngi béy waaram ci ci xeet bi ci lépp ndax ñu ngi koy dégg gis ay action yu muy def donc ñu ngi koy gërëm du ko sant ndax lii su ko defee war nañu ñu tecce fekkee ko ci teew ci ñu koy gërëm bu baax a baax baax mu ngi taxaw ay mbokkam mu ngi taxaw baayam bii baayam jooyul dara ay mbokkam jooyul dara ci mbokk yaayam aussi la même chose kon nag ñu koy ñaanal yàlla li ma bëgg yàlla na ko ko yàlla may ci barke yonent bi ci barke sëñ Fallu mii waaw loolu rek laa amoon lu ma leen wax waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. tey sa li nga xamante ne organisé na ko. dooree woon ko ci mburoog chocolat. ba tey mu yeew ay cinq nag. ak ay ginaar ak xar. yow mi nga xamante ni yaa ko jur. lan nga ñu mën a wax ci sa doom ji. waaw buñ uh, sante yàlla ba pare julli ci yonent bi. waaw ñu ngi koy gërëm di gërëm yàlla di gërëm yonent bi mais bëggoon naa nga may ma ma wax ak tuuti sama mbokk tukulóor yi ba pare parce que mbede salmin maam tey maam euh, ñëwal kaay ajaa laa gañ maam de wax nga wax na dëgg papa wax na léegi maam ku baax la doom bu baax la ñëpp ko ñaanal wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal rek doom nag doo ko doo ko doo ko gërëm doo ko teel a gërëm danga koy ñaanal yàlla waaw ci kaw ci kanam rek maam moom bu soobee yàlla amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am yàlla naka yàlla aar yàlla suturaal ko nag toppatoo ay waajuram papam xiiful maru raflewul yaa ngi dégg ay rakkam tamit toppatoo na ñëpp bàyyiwul kenn diw nag nee nañ ndax baax na ñu ne ndax mbokk yee ko wax moom nag ay mbokkam a ko wax ay mbokk ma ko wax dëgg yàlla maam ku baax la caay gis say wayjur damaa kontaan ndax nit amul ku dul mbokkam lii tamit day firneel ni maam kilifa gi muy wax à chaque fois mm. eh, tey man firneel naa wu ñëw ànd ak seen i mbokk ñëw gunge la ci bés bi mm. donc nit ku am kilifa nga man mën naa ko seede tey waaw damay kontaan rek comme li may wax chaque jour rek bu nit ñi di wut alal wutal nit ñi ndax boo leen amee am alal te man tukulóor laa te dama cee feer ndax fu ma toog dama koy wax dama leen naan leeraabe laa dëkk ilimaan ilimaan yaay sama maam nit nag balaa nga koo xam ay mbokkam taxaw maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam may leen gudd fan ak wér gu yaram bañ leen di weer a weer kontaan naa trop xaw ma lu may wax wax fa dëgg yàlla ki sama maam salaamaaleykum waaw man xanaa di ko rafetlu rek man kii bi ma koy bëgg boobu xaw ma ne sax mbokk la di ko suivre tout le temps sama doom yi bëgg ko boobu xaw ma ne sax mbokk la par la suite laa ko xam mais nag man wujjam laa wujj nag xam nga du wax du wax ci moroomu kii wam <laughs> waaye nag n'empêche xam naa ne daal am na ngërëm waajur loolu moom lu ma leer la parce que ay waajuram dañuy wax may dégg xale nag bu amee ngërëm waajur tegi ci yoon rawatina mu nekk taal bi Serigne Fallou bu mu ragal bu mu tiit ca kaw ca kanam yal na ko yàlla suturaal sàmm ko aar ko lu mu man ren yal na man déwén lu ko ci barke sëñ Fall jërëjëf am donc euh, kon xam naa ni dañuy def nii rek euh, dalal gan ñi euh, tey li ñuy wax spécial màggalu Kazu Rajab ak Mame Ndiaye Savon donc sama caméraman bi am euh, dañuy yemale foofu rek dugg xaar li nga xamante ni mooy ndékk yi ak berne yi fii ci de people 221 jërë ngeen jëf. kii euh, màggalu sëñ Fallou gi euh, li ñuy wax tungu naru teew ñu netaal te bu ñu nee diw baax na ñu ni ndax mbokk yaa ko wax ku ne gis na kii toog di way jurum Mame Ndiaye Savon yaakaar naa ci sama micro bi rek lay waxee. mu defoon fi benn vidéo boo xamante ni di def ay seede ci doomam euh, ñu bari vidéo boobu touché leen tey bu ñëwaatee ci màggal gi nag ànd ak ay mbokkam ñëw gungeel doomam ah wax dëgg yàlla nag du ñàkk mu sànni ci ay kàddu yaay nuyu naa la. maa ngi lay fay guy gi. ñu ngi sant yàlla bu baax la. mais maman nii nga def. waa nii laa def rek ci sama bisu doom ji kontaan rek macha allah. waaw kay parce daaw defoon na ko ren ñu defaat ko nii. alaaji Fàllu moom ku koy lebal na nga ko lebal lu baax ndax loo ko lebal dalay fay waaw may koy sant nag di ko gërëm bu baax a baax kontaan ci moom kontaan ci moom trop maam mënuma koo fay bañ nañ ko ba dan naan maam man moom laa bëgg loolu àdduna yëpp xam na ko parce que fi ma teg la maam daf maa bëgg safoo ma faale woo ba àdduna bi yëpp xam loolu ma koy sant di ko gërëm di ko ñaanal rek barke Seydina Muhammad ñaan du doy chaque jour maa ngi koy ñaanal nee naa ko demal ca kaw te kanam bu ragal dara gàcce ngaalaama parce que lekkoo dara bàyyi say famille kenn xiifu kenn marul barke Seydina Muhammad papaam gërëm na ko man mii di ndayam tamit gërëm naa ko trop barke sëñ Touba maam jaaxaluma billaahi jaaxaluma benn yoon ma kontaan ci moom nag bisam bii yàlla na yokk ba mu yëg ko lépp lu mu am ren bu déwénee yàlla na yokk ba àdduna bi yëpp teg ci seen bët parce que barke sëñ Touba ca kaw ca kanam rek billaahi mooy li ma ko wax rek gàcce ngaalaama. ay maam bés bi doon bés boo xamante ne nii bés bu mu fonk la. ñu coono yi nga xamante ne tamit da koy def donte borom bés bi it lépp loo ko ci defal rek daanaka fayoo ko euh, maam geste yi muy def ci bés bi di jël ay teraanga di ko indi di ci daj ay coono ngir euh, daagu digganteem ak sëñ Fall yow miy woy juram lan ngeen ci mën a wax. ja digganteem ak sëñ moom dafa yàgg parce que bi mu amulee dara la bëggoon sëñ Fall te yàlla rek tax ba léegi nii gàcce ngaalaama lu mu am rek yàlla ak yonent bi. ak ñaanu waajur ak ñaanu baay ak ñaanu alaaji Fàllu Mbàkke ak mbokkam yi barke sëñ Tuubaa maam lekkul dara bàyyi benn mbokkam mbokkam yëpp ko gërëm billaahi li muy def nii ci mbokkam yi la ko njëkkee ñëpp lay defal maam bàyyiwul kenn maam daal dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam a kanam loolu lañ koy ñaanal. xam naa ne moom tam d'accord lan ngay wax sa lan ngay wax sa mbokk yi nga xamante ni ñëw nañ tamit accompagner la say jigéen ñi nga dendal euh, ñëw ànd ak yow aussi tamit. kii moom sama ami d'enfant la ñun ñoo bokkoon fi ñuy sëy yàlla boole ñu. ko topp ci man ba pare muy doog a topp moom mooy yaayu Fatou Kiné mi ngeen di dégg mu yëkkati Fatou Kiné nag may ma ko te yàlla rek tax te yàqu ci dara xoolu si dara billaahi. Hmm. <laughs> ah bés bi de xanaa kontaan di ñaan yàlla ñu commencé bisimilah rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilah rabil alamin di sant bu baax miis te xam ne wax dëgg fa yàlla liggéeyam wàllu si na ndax bu dee coon rek daj na ko te xamoon na ne lii yàlla dina ko fay miis bu amul woon doom du ñu tudd ci àdduna man ma xaaj te xam ne say dara jaru ko fi macha allah la mu nekk nit ku baax maam ku ko gis kaf nga koy gisee ci écran mais nit ku baax la te jikkoy baax boobu ci yaayam ji la ko jëlee nekk nit nit ku mën ku mën a sëy nag di sëykat dëgg di sëykat pur ndax yaayam sëy rek la xam yàlla nag mooy weddi lépp. ba yàlla dogal lii tey jii mu am mais macha allah tubaarkàlla di ko ñaanal rek mu koy def ay ati ati at ci daraja yonent bi sëñ Fallou bi mu woote mu yokkal ko ay xéewalam lu baree baree bare bare maam nag ay mbokkam gërëm nañ ko de barki sëriñ Babacar Si ay mbokkam ba ko njëkk gërëm nag keneen doo ko gërëm euh, donc mu ngi mais Eva yéen ñi ànd ak maam euh, di ànd ak moom di ko jege souvent bés bi bu bu bu jege see yéen nan naka ngeen ñuy composé woo ak maam waaw santaat yàlla rek guy gi parce que Euh, bébé Eva ku ne xam na ko sëñ Fallou ndax man sëñ fàllu rek laa bëgg waaye jëmm ji dafa nekk nit boo xam ne man boo nekkul taalibe Alaaji Fallou da koy bëgg far force parce que ni mu mel ci moom la man boo koy nax sax sëñ Fallou nga koy amee euh, moom nag chaque jour dama koy wax dara daraay àddina boolewuñu moom sëñ fàllu moo ñu boole te sëñ fàllu mu ñu boole moo tax duñ tàqalikoo ci àddina maa ngi moom mosuñu werante barki sëriñ Fallou lu coow li di bari bari maa ngi moom mosuñoo werante kon bu ndërmalee baas ndax dooma gën a foor mu ne dipp nga jël ko tuddee sëñ Fallou kon boo dënmalee baas ne da ngaa woote sant sëriñ Fallou bettut kenn te lii chaque at day gën a yokk xam nga daaw melul woon nii déwén du mel nii barki sëriñ Fallou Mbacke chaque at day yokk man heure bii Touba la ma waroon fekk waaye sama waa nee naa ko bu woote woon lii bi dama ko fay fekk xam nga lu tax ki la def ni deful kenn da koy def ni nga deful kenn dama koy wax ba àddina dégg ko gis nga man bu ma nit dee na xam nga kan nga may naxee sama waajur ndax man damaa bëgg sama yaay. te barki démb bi sama yaay day anniversaire dana ma bébé Eva foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma ñëwal léegi léegi ma jël taxi ñëw mu taal otoom jënd gâteau egg yëkkati alal ju bari jox ko sama yaay du xaalis bi mais geste bi parce que nit gën na maa jege te defu ko kii nag Serigne fàllu moom ma booleeg moom te Serigne Fallou mi ma booleeg moom moom laay ñaan mu tegal ma kii loxo barki alxuraan karim du gis lu mu ragal du gis lu ko jaaxal te jàmm rek lay am barke Seydina Mouhamed kuy néew di doole jàppale na la. li muy def mu nëbb moo moo ëpp li muy def mu feeñ kon tant Serigne Fallou bii bu amee war na te man bu amee man Bébé Eva ma ne damay dem Touba kon li may wote ci Serigne Fallou dëggul kii ci njabootu Serigne Fallou la bokk est-ce que dégg nga ma barki Serigne Fallou ci njabootu Serigne Fallou la bokk parce que li borom xol bu rëy rek moo ko man te day gën a yokk. mais ñu gis ni màggal gi daanaka ñu bari dañuy xaar ku leen tuddee ñii di ut ay invité maam jël ay engagement am ni man màggal gi lépp loo xam ne rek wareef la mën maa koy defal sama bopp te it yombul ci jamono ji wax dëgg yàlla. dama ne la kii njabootu Serigne Fallou la bokk te bu yaa ko dégg boobu ba tey xanaa mu nekk ci live bi di foo woo naa diw woo naa diw woo naa diw mais da koy màggal mu neex te ci propre xaalisam lay nekk parce que mën na ko macha allah te yàlla na gën a yokk te barke alxuraan day gën a yokk place yeeg lépp day gën a yokk xol bi rafet na baax na ba pare Serigne Fallou moo ne woon ku ko lebal junni mu fay la juróomi junni sëñ Fall moom ku ko dompat da lay xët te bu la xëtee rek nga yëg ko <laughs> bu la rek nga yëg ko da ngay prolongé te kii prolongé gudde sëñ Fall fi mu ne da koo ngàdd rek des na bii paa da koy bule day da koy bule ma bule de xaw ma fa ma jëm <laughs> moom damaa cof